بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala ñu ngi koy bàkk di ko kañ ñu ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamam xéwal ci kaw yonent bo ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ñu ko doon baamtoo te wala nazalu nukarrir xam ngeen mbokk yi ni waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo sa foo ko takk romb na ko la ko sabab mooy ñoom ñooy taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu jëkk ya njàngale mu mokk ma te set ca ñoom la amoon ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tazkiya woon ginnaaw bu leen seen boroom tazkiya ñooy ñi nga xam ni bu yonent yàlla yi jàllee ñooy ñi gën ci kaw suuf amul ñu leen jiitu ñu mel ni ñoom mbaa ñu leen gën keneen dootut ñëw ci seen gannaaw ku mel ni ñoom mbaa mu gën leen kon day jaadu na mbokk yi sunu bëgg saxaaba ya ñu feddli ko dañoo ameel àq saxaaba yi ci bëgg leen ndax ñooy copie bu leer bu set bi bàyyi ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wasaare diine ji ci bépp moyen bu mu leen laajoon moo xam seen bakkan la du ko fekke moo xam seen alal la du ko fekke laa shakka ni mbokk yi jàpp naa ne la mën a jeqar bi yëg-yëgu ku gëm yàlla bokk na sa yooyu mooy waxtaanee seen dund ndaxam waxtaanee seen dund de mën naa yegg foo xam ne nit ki dafay mel ni mi ngi jàkkaarloog ñi ñu koy waxal wala ki ñu koy waxal dafay mel ni mi ngi fekkee jamonoy saxaaba yi ndax xam ngeen siira ahlu siir dañuy wax ni bokk na ci rôle bi nga xam ne siira daf koy joué ci xolu ku gëm mooy ki ko ciin di ko liir ak ci ko toog di ko déglu léeg-léeg di nga toll ci moment boo xam ne dafay mel ni yow kiñ lay waxal ab nataalam lañ teg ci sa kanam nga di ko gis dafay mel ni mbooloo lii ñu lay wax yaa ngi jàkkaarloog ñoom di leen seen wala sax da nga dundandoo ak ñoom nga xam ngeen ni siira dafa mën a nettali ndax dafay nettali ba nettali la yoo xam ne wax dëgg yàlla ak soññ lay doon ñeel la waaye ak soññ lay doon ñeel la kon jàpp naa ne bind yu mel nii bu ñu ko mënoon di am bis bu ne ci suñu dund ah solo sa dana bari lool moo tax am na ñenn ci ñi nga xam ne dañuy góorgóorlu ci seen diine da ngay gis danañ wut programme boo xam ne lu mu gàtt gàtt bis bu nekk rek donte sax juróomi minute la ñu am ko fàttali ci dund saxaaba ya la ko waral mooy jàdd dootu la yomb ndax mboolem jéng-jéng yeeg jàdd-jàdd yi lay daf lay jubbanti ba loola du la yomb waaye danga gën a am ndëgër léegi bu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala bu ñu àndee ñu fàttaliku suñu bind bi weesu noo ngi nekkoon ci alsaxaabiyu ljalil uwaymir abu darda alsaxaabiyu ljalil muy uwaymir abu darda bu ñu fàttalikoo bind bi weesu moo nekkoon njaal beenu bind ci dund abu darda kon bi xusne tawfiq albaari tey ñu àggale ñaareelu xaaj bi ci dundu abu darda makaanatuhu fi qulubi alsaxaaba radiallahu anhum ban dayo la saxaaba ya yëkkati woon abu darda teg ko fa wala fan la saxaaba ya tolloon fan la abu darda tolloon ca saxaaba ya xam ngeen ni mbokk yi ahlul fadl muy ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ñoom duñu weddi nit ki li ko sunu borom baaxe sunu làkk worof bi am na ci benn proverbe buy wax lu mel noonu mooy nangul sa morom ak mbaaxam du wàññi sa mbaax dara wala li naan beneen ni olof nee na sukkur tax a yóbbu sa yoom xam ngeen ni maanaam borom bi subhanahu wa taala moo sàkk ay jaamam bi ñu leen sàkkee ba nopp kenn ku ci nekk dafa am lu mu la may loolu moom dañ koy nangu kenn ku ca nekk suñu borom may na la lu mu mayul sa morom tey boo xoolee sa morom ba jàpp ni yaa ko ëppalee ci fii boo gessootu da ngay sum la ëppalee ci wàllu xam-xam ci wàllu wërsëg ci wàllu yépp gis nga suñu borom wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq ah ci mbirum diine mu ne undur kayfa faddalna baadakum ala baad bu dee alal la mu ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq ñenn ñi suñu borom moo yaawi seen wërsëg ba ñu ëppale seen morom loolu def def suñu borom jëpp soxoree beneen bi ci wàllu àllaaxira suñu borom mu ne undur xoolal rek xoolal rek kayfa faddalna baadahum ala baad ni yàlla jëlee ñenn ñi rek yëkkati leen ba ñu am yoo xam ne da ngay jàpp ne bu doon mbirum far far la naan suñu borom daf leen a faral te suñu borom def loolu moom la muy def moom loolu li xikmati baaliga mu ne undur xoolal rek kayfa faddalna baadahum ala baad naka la suñu borom jëlee ñenn ñi ëppale leen leen leen ci wàllu diine kii gën a ragal yàlla kee kee gën a jub kii kii gën a baax kee kii ëpp xam-xam kii kii ëpp ko mën a leeral kii ëpp ko mën a nangam ah mu ne wala al axiratu buñ demoon ba alaxira nag akbaru darajatin wa akbaru tafdila dara ji suñu borom di maye fii ci àddina mu ne alaxira lay gën a kawe waaye ngëneel li suñu borom di joxe mu ne alaxira lay gën a bari yàlla suñu borom boole ñu leen jox sa ngëneel yooyu ak darajaat yooyu abu darda mbokk yi amoon na place bu kawe ci saxaaba yonent bi jëlee nañ ci imam makxuul mu ni kaana saxaabatu yaquluun arxamuna bina abu bakrin wa antaquna bilxaqi umaru wa aminuna abu ubaydata wa aclamuna bilxalaali walxaraami mucaadu wa aqra'una ubay wa rajulun cindahu cilmu bni mascuud wa tabicahum uwaymir abu dardaa fi lcaql aw bilcaql loolu imam ibne asakir mi ngi ko génnee ca siira imam zahabi tamit ko daal di ko nettali makk xelmu ni saxaaba yi ñoom demoon nañ ba reconnaître ante seen biir mbaax mbaax yi moo tax doon nañ wax ni ci ëpp yërmande ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw yonent bi mooy abu bakar allahu akbar xeetu lislaam yépp nag bu yonent bi jàllee ki ci ëpp yërmande mooy abu bakar siddiq yërmande ji mbokk yi foo ko nag loo xalaat rek jàppal ni romb na loolu ku jàng dundam xam ci dara mu ne wa antaquna bil xaqi umaru ki ñu seet ni moom wax dëgg moom moo ci jël fee mooy Umar ibn al-Xattaab bal sax bu ngeen fàttali ko ci dundam saxaaba yi dañ doon wax ni dafa mel ni daal daa am benn malaaka buñ teg ci làmmiñu Umar moo koy waxal dëgg mu ni ki gën a wóor ci ñun te ñu tànn mooy abu ubayda te li ñu tekkiwul li ñu tees dañoo wóor ahan kay wóor nañ waaye ku nekk dafa am koo xam ne fa nga gën a fasee mu ni wa aalamuna bil xalaal wal xaraam muaad nii dafa arab lii dafa dagan lii dafa arab lii dafa dagan te ko gën a mën a ràññee mooy muaad ibnu jabal faqihu hadihi al umma mu ni njàng alquran nag moom bàyyi la ubay ibnu kaab moom moom suñu borom dafa la defal may yéen a ngi fàttali ko ca xadis yi ñëw ci buntu naafila xam ngeen moom la amar ibnu xataab jëloon fay ko fal ko mu nekk imam di jiite tarawix yi moom la yonent bi waxoon day dóor loxoom ci màggam ni ko ayoo de xam-xam mi ngi lay ndokkeel ba mu ko laajee ban ayaa gën a màgg mun ko ayatul kursi waaye mu ni ak koo xam ni benn waay boo xam tuddul turam waaye kooku daa fa mel ni la ibni mas'ud yore ci xam-xam lépp boppi na ko moom waaye keneen topp nag ci yew ak ñor ak xàmmeek ràññee mooy abu darda mooy awee yer ibni isxaaq dañ dot nee na dañ doon wax ni naan ki gën a topp xam-xam di ko jëfe mooy abu darda te mbokk yi xam ngeen ni xam-xam jëfe da ca am solo trop maanaam nit ki saa buy jëfe lam doon xam rek gis ngeen luqmaan alxakim loolu doon wax doom ji mu ni sama doom da nga fexe ba booy jàng da ngay jëfe da ngay jàng mu ni kii jàng te jëfewul ba pare mu continuer jàng mi ngi mel ni waa ji dem ba ca àll ba taxan fonkalu sayu mat mu yëkkati wér ko ni wii àttanu ko au lieu que mu wàññi ko pour yenu dem mu dem taxanaat di ca doon kooku xanaa daa bëgg a xaalal boppam ca àll ba ko yow yaa ngi taxan aw say yëkkati nga yëkkati mënta yëkkati xanaa kay la xel doon nangu mooy nga wàññi ko dem waaye moom mu dem taxanaat di ca doon sayoo di gën a rëy te ñaareel mooy yëgal ni loo jàng te jëfewoo ko rek aw lay la wuy këpp ci sa kaw lay la bu këppoo ci sa kaw rek xalal la abu dar allahu akbar saxaaba yël dalil nga xam ni jàpp naa ni tagg min ko tagg rek moom abu dar mérite bi mu am ci biir saxaaba yi ba ñëpp reconnaître ko ko xatta asman saalisu xulafaa rasulillah abu dar ci boppam ak li muy kéemtaane kéemtaane abu darda da koo yéemoon abu dar ak li muy kéemaane kéemaane ak li muy dëdd dëdd adina abu darda da koo yéemoon abu dar nee na xool naa ba xool waaye xobu garab yi tiimuñu ah waajoo xamante ni moo la gën a xam yow mii di abu abu darda moom abu dar lu ko yent boo xot xobi garab yi tiimuñu ku la gën a dëgg kon moom daa fenn daa fenn li ca lañ ko joxoon jox ci abu darda yenent bi moo waxoon abu dar ni ko xobi garab yi tiimuñu ku la gën a dëgg allahu akbar abu dar ni abu darda xobi garab yi tiimuñu yow ku la gën a xam imam masruq nee na wajadtu ilma sahaba intaha ila sittatin saxaaba ya seen fóore ya seen borom xam-xam ya boo doon wër ci ñan la des biñ faatoo diñ ko fekk si juróom-benn yi Omar Ali Ubay Zayd Abu Darda Ibni Mas'ud nee na waaye ñoom ñëpp seeni xam-xam nag boo seetloo tënku na ci Abdullah ibn Mas'ud ak Ali ibn Abi Talib Xaalid ibn Mahdan nee na Ibni Omar danaan jékki-jékki moom yàgg mu ni man dama bëgg ngeen waxal ma ci ñaar ñi nga xam ni kenn gënu leen a amul dégg-dégg te yeewu ñu ne ko ñaar ñooñu ñan lañ mu ni Muaad ak Abu Darda يزيد ابن معاوية نانا إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يصفون من الداء نانا برم خم خم دفع نيو خم دني جانجل رجل أم نيو خم دني جانجل دياراني أم نيو خم دني جانجل دي سوف أيني waaye mu ni abu darda moom yàlla boole na ko ci borom xam-xam yi nga xam ni ku jonjog moom ñu saafara sa jàngoor ndax koo xam ni boo jonjonteeg moom ci wàllu dëddu àddina ci wàllu ragal yàlla ci wàllu mooy tandikolu xaraam ak di di góorgóorlu ci ay ibadatam sa njombaxtal ga fi durwa la ko la ko la ko yegg abu darda mbokk yi ku ragaloon tooñ la ku ragaloon ak tooñ aka jar ragal mbokk yi tooñ tooñ tooñ wolof yi neen tooñ du du gàllaaj tooñ baaxul de est ce que xam nga ni àllaaxira bu ñu fa yeggee borom bi subha ahadisu safaa la lay xadis yi ñëw àllaaxira suñu àttee ba noppi ba nga xam ni set nga wecc dara desut lu dul jéggi siraat nga jéggi siraat ba cëppeelu nga xam ni dugg àjjana rek ka ci des des nga benn problème mooy xantara xantara mooy fa ñuy delloo tooñ yi lu bàyyi liñ si xel de maanaam mbir mi du caagin mbirum jéggi siraat jàll rek tàbbi àjjana des na de yonent yàlla bi nee na saa bu ñu joggee siraat ba nga xam dara gisul lu dul jog dugg àjjana ñu àgg ca xantara ba nga xam ne huzibu wa nuqu foofu nag dañ naan taxawal nag léegi des nga benn benn visite visite bi moo les pour nga dugg àjjana maanaam dafa mel ni si këyit bi nga yegg ci frontière sàngam dañ koy xool bi nga faatoo ñu yóbbu la ci bàmmeel ñu xool say këyit ne la jàllal nga romb jàll alaxira taxaw ñu xool say këyit nga romb jàll bi nga ñëwee ba bis pénc fa yàlla àttee ñu xool say këyit nga romb jàll nga jéggi siraat romb jàll léegi dese nga dernière visite boo xam ne faw ñu xool say këyit nga doog a jàll foofa nag yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam fa la ñuy xoolee jëf yi nag ak li nga tooñ sa morom loo masa tooñ nit te jéggal la ko di nga ko di nga ko jox ak jàll ci fii ci àddina nag it mën naa yàqu ne te fekk li ko yàqal mooy dafa tooñ gis nga léeg-léeg nit mën naa am lu ko dal nga dégg ñu naan dañ koo liggéeyal dañ koo nangal fekk kenn liggéeyi liggéeyuñ ko defuñ ko lu bon xam nga lan la maanaam dafa tooñ tooñ gi këpp ci kawam loolu rek la ka nga tooñ sax liggéeyu la liggéeyu la ñaanal lu bon déedéet waaye tooñ ci jëmmi boppam dafa am ay musiba ay tooke yu ca nekk yoo xam ne bu këppoo ci sa kaw rek xalak la Abu Darda am na jamono faloon nañ ko mu nekk xaadi di àtte waaye nee nañ pour ragal ak jël àqu jàmbur ak tooñ su musaana àtte ba not ba àtte bi jeex te xam ngeen ni ñooñu ku ku ku leen xam xam ne suñuy àtte luñ mën ci jubal ak teg ci dëgg dañ koy def su leen àttee bañ wane ginnaaw mu ni bu ngeen ci amee tuuti ñagg-ñagg rek dellu si waat leen ma àttewaat ko ñaaral bi yoon man am naa googu jot buñ ko laajee lu tax muy def loolu muy dafay ci yëkkati benn àqu jàmbur jox ko kenn jàpp naa ne loolu day suñuy àttekat tey moo xam ci diine la ñuy àtte moo xam ci lu dul diine la ku xam fi àtte toll tey jàpp naa ne doo tooñ de jamono yii kaa sama benn xarit nettali na ma ne daa am benn waay bu dee faat fekk àttekat la ci ma ko nettali moo fekkee de mu ne bi ñu tëralee néew yi ba dara desul lu dul jullee benn waay daggee ca làng nga ni këpp ci kanam waa bi ni ko yow mel ni koy wax ak nit de ci digg mbooloo mu ne ma keroog am na ñoo xam ne dañoo gedd noonu lañ génnee ci julli ji dem julleewuñ mu ni ko yow ah da ngaa foogoon yàlla du la jàpp tey nag yàlla ñëw na li nga ma def maa yow ba ca kanamu yàlla nekk dafa àtte waa ji àttekat la woon dafa àtte waa ji dafa am problème ak jabaram ñu dem tribunal mu àtte ka ba sëy bi tas mu takk waa ji mu takk daw si mu ne ko yow li nga ma def da ngaa foogoon ni yàlla du la jàpp tey nag maa ngi waaye baax na bañ daje ca kanam suñu borom daal rocceeku dem bi mu rocceekoo dem am na mbooloo ñoo xam sax dañoo génn dem ndax am na ñu xam lam lam la lan la parce que ci kon kon lii musiba mbokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari li la nga tooñ nit mbaa nga àtte ko mu ne la bàyyi naa la ak yàlla allahu akbar wallahi mbokk bàyyi naa la ak yàlla ku xamoon fu mu toll buñ la ko waxee doo nelaw ndax bàyyi nañ la koo xam ni du bàyyi dara mu jàll déedéet kon wattandiku ay tooñ saa boo tooñee nit fexeel nga jéggalu ko gis nga boo tooñee te jéggaluwoo ko yëgal ni àllaaxira boo demee nag problème ngay gën a am parce que na nga ko delloo ci say tiyaaba ah tooñ nit nag war koo jéggalu jéggaluwoo ko di xaar ay tabaski ñëw baal ma ak baal naa la ak affaire sentiment yooyu loolu àggul fenn fenn la jëmut ay baal ma ak baal naa la ak yàlla yàlla boo demee jéggal loolu jëmut fenn laa wax loolu affaire sentiment la baal ma ak day jóge ci xol baal naa la jóge ci xol waaye baal naa baal naa yàlla yàlla boo doon jégal ku nekk dem loolu réglé wul affaire yi de affaire yi li koy réglé mooy nga dem ba ci nit ki am na ñu koy def de nit dina jëw nit dem ba ca moom ni ko man kat barab sàngam ba ma fa toogee jëw naa la nangam ah maa ngi jégalu wa loolu boo ko waxee ndeysaan ku baax yaramam sax day daw mu baal la ndax mag yi nga am ba ñëw def ko yàlla moo lay jàppale subhanahu wa taala gis nga de fexe jégalu waaye mbir am nga wax ca xaabaabal a tooñ wala nga jël yëfi jàmbur wala nga jël loo moomut wala nga naan nga ni ñeex nii gaaral mel ni ku yëgut lu xew boo dajeg sa borom rek musi dabal saxaaba yi nii lañ doon dawee tooñ taabiu nit nii lañ doon dawee tooñ am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Saad Yusuf dafa taalif benn téere tuddee ko aqibatu zalimin mu jëntal tooñkat yi gis nga boo ci doon la subhaana rabbina al aala misaal yi muy joxe ci wàllu tooñ dafa jéggi dayoo benn rek ci moo ci mën a mën a teewlu la mu ci andi mat na juróom benn fukki exemple ci tooñ ak waaja ko mujj bokk na ci benn waay boo xam ne moom dafa dem ci tefes ga mu fekk benn waay bu yor ngam daw jën mu ëpp ko doole rek dóor mu daanu mu nangu jën woon bi mu nangoo jën wa te waa ji loolu rek la yaakaaroon ak njabootam mu ñibbisi ci këram waa ji daal di julli ñaar rakk ñaan borom bi subhanahu wa taala ki jël jën yi bi mu demee ba këram muy defar jën yi xam nga jën gémmiñ gi day amee jam-jam mu dugal loxoom di roof rek benn yax daal di koy jam ci baaraam jam-jam bi nag mel ni sawaay nag moom jam la doon xaar loxo bi di neew yi di dagg di neew yi affaire bi jéggi dayoo mu dem hôpital bi ko médecin bi xoolee ni ko ah baaraam bi dafaw ñu dagg ndax fi mu ne ni mi ngi lekk di dem te boo ko daggul day jëm kanam nee na ñu daal ñu këtt baaraam bi daal di bàyyi noonu mu toog ñaa ay fan affaire bi commencé waat di metti waat metti bi jéggi dayoo mënul nelaw guddi mënul nelaw ba cëg bi mu demaatee ci médecin mu ni ko ah biñ ko daggee dañoo foogoon ni affaire bi kat fala yem ndekete mi ngi yéeg kon nañ ko dagg ci waxtu wi ñu daal dagg fii loxo bi mu toogati ab diir affaire bi arrêté wul mu continue metti bu gën a tar li mu demaatee ci médecin mu ni ko gis nga nag li ma jàpp mooy bii yoon nañ jël lu bari comme nañ ñëw ba fii ci conc bi ñu dagg ko biñ ko daggee ci conc bi nag ci la benn borom xam-xam ni ko lii damaa yaakaar dut neen damaa ragal da nga am loo def vérifier ba xam amoo koo tooñ muy xalaat di xalaat di xalaat ba xalaat ni moom tooñoon na borom jël woon mu di ko wër mu di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër ba teg ko bët gis nga dañ ko jéggaloo ba waaj a jéggal ko ca la affaire ba yam foofu fekkam jot na nga dagg loxo ba fii gis nga xeeti yi lii lii lu téeméeri junneeg juróom-ñaar fukkam nag mi ngi ci biir dëkk bi yoo xamante nii nit ñaa ngi yaakaar lii lii la moo tax may wax ne gis nga léeg-léeg dina am mbir ñu ni lii lii la fekk du loolu nee la léeg-léeg nit mën naa yàqule fekk lii ko jàpp léeg-léeg nit mën naa yàqule fekk ak ak way juróom a ko jàpp nit mën naa yàqule fekk ak jabaram a ko jàpp nit mën a yàqule fekk ak jëkkëram a ko jàpp gis nga ila axiri yooyu nga xam dafay niroog dañ koo liggéey dañ ko dafa cet dafa am cet daa am bët comme ni ko nit ñi jàppee wala dañ koo njabar fekk dara amu ci mbir mu simple la moo xam ne da ngay dem dindi la nga toon nga rek yëf yi yegg gis nga xirsuhu ala al uxuwati assadiqa abu darda mbokk yi ku amoon sincérité la ku dëgg woon la ci ak ànd mooy ñun li ñu yaa axi yaa axi na nga def waay yaa axi yaa axi ji fan la àgg salaam ngi kese xasanul basri nee na ndax ñu ne laa fekk sa mbokkum juri teg koofur fooram nga jël ca mille franc dem faji sa soxla gars yi ni déedéet mu ne kon boo ne ko yaaqi da ngay kàcc mu ne kon boo ne ko yaaqi da ngay kàcc yaaq yi jote ba war a yegg foo xam ne loo fas la ci sa xol waajo dafa toog biir këram benn xaritam ñëw daal ni salaamaaleykum mu ne ko kan la mu ne ko man la sa xarit bi diw mu tëjaat bunt bi faale ko dugg ci biir xam naa xarit bi nekk yeewu comme moom mu naa dem ba mu yàgg mu dellu si waat salaamaaleykum mu ne ñëw ni ko kan la mu ne ko man la yow mu ne ko waxal bil baa bi xayru ndax kii fëgg kii wuñu duñ benn mu daal di koy ubbil daal ne ko ah xarit koo balaa dëgg dañuy dem ba nekk benn waaye nga ñu may séparé naan yaay man yow yaa xarit bi man maay ci nangam mu ne ko mu ne ko ndax kii fëgg ak kii wuyu duñ benn da ko bëggoon wax xaritoo bi dëgg na ba yegg foofu kenn ci ñoom ñëw nañu ni ko ah suñu surgaam bi ni ko am na lu xew de mu ne ko lu xew mu ne ko sa xarit ba wóolëre ba diw yaa ngi fàttaliku mu ne ko waaw mu ne ko daa ñëw laaj ma sa waxate fan la nekk ma ne ko mi ngi ci barab sàngam mu dugg fa jël fa ñaari dinaar mu ne ko giñal mu li ngeen doon giñal mu ne ko giñal mu waat mu ne ko bu fekkee li nga wax dëgg la gorel naa la mu dugg xool gis mu manqué ñaari dinaar mu ne ah ndeke sama mbokkoo gi ma doon yaakaar ni ak naa fekk da cee rax ndeke dëggu na kon waa ji dem na ba ñeme ma ba xam ne maay moom mooy man mu ñun koo ci laal yëfam moo lay man ni nun li ñuy wax suñ bi yëgul tam ñu koo ci nasalullah al aafia daanaka daal mi ngi noonu daal mi ngi noonu boo dikkee ci góor ñeeg jigéen ñi ñëpp a ci bokk yoon dañuy jëwante di fenalante di yàqalante ay der loo xamal ci nit ki mu siiw lu ñaaw loo ko xamal nga wax ko lu baax loo ko xamal nga nëbb ko gis nga ñun noonu la ñuy dundee ñun ñii nag ñu ngi nii ñun noonu la ñuy dund ñun ñëpp jàpp naa ne lii déglul Abu Darda soxnaam mooy netti li ne man li ma yéen ñetti téeméeri nit ak juróom benn fukk xam naa leen yoo xam ni Abu Darda suy julli da leen di ñaanal man yoo ci moom xanaa àddinaam yëpp da kaa bëgg di ñaan trois cent soixante trois cent soixante personnes yoo xam ni waa Abu Darda ñi ngay ñaanal ñan la mu ni ñii samay soppe lañ ci yàlla yoo xam ni su may julli duma leen fàtt dama leen di ñaanal yàlla lu tax mu ñu dégg naa ne am na benn malaaka boo xam ne sooy ñaanal sa sa mbokkum julli day taxanaan amin wala ka mu ne bu ko defee man ñetti téeméeri malaaka ak juróom benn fukk laa bëgg ñu naan ma amin wala allahu akbar imam ahmad ibnu hanbal ndeysaan danaan def fu mu jullee la ñaanal imam Saafi ba doomam bu jigéen naa ko waa Saafi moom xanaa bokkul ci nit ñi moom dafa demoon ba jàpp ni Saafi moom keneen la xol xol loolu ñun nga xam ni sa waay yi dañuy iñaarante sax ci wàllu xam-xam waaye imam Ahmad ibn Hanbal ah danoon def saa bu jullee ñaanal Saafi ay ba doomam bu jigéen naan waaw Saafi moom xanaa bokkul ci nit ñi benn bis doom bu jigéen bi Saa Ahmad ni ko Saafi dañuy gën a si tey doom ji nee na maa ngi waaj a naaw ndax kontaan bëgg xam kan mooy saafi yi koo xam ne sama baay gis bi dama di ko ñaanal doom ji nee na bi saafi yegg see ci kër gi fekk falafanaan mu ne moom moom rek lay xool saafi lay xool rek ba xam moom ci lu mu nekk ak mooy kan xam nga léeg-léeg nit dañ la koy wax façon boo xam ne yow da ngay jàpp ni kii moom sa waay dépassé na doomu aadama yi ndaw si nee li ma jaaxal mooy bi saafi yegg see ñu taajal ko reer ma jàpp ni ah kii di xanaa moom du lekk lu bari moom ni mu ko sama bàyyi tuddee xanaa borom xam-xam mu ni mu lekk reer bi yëpp ma ni ah mu ni tëdd jot ma di ko may bët di ko bàyyi xel defe ne moom guddi gi yëpp da koy fanaanee naa fi la mun naa mu ni fa mu toog jugu ko ma ne ah ah ñi saafi yi day man taxut ma ma daan wax di bokkut ak kii bi mu yeewoo mu daal di koy wax bàyyam ni ko yow mbaa du kii mooy saafi yi mi nga doon wax ah man de kii saafi yi ñuy yeewu ma xam ne nit ñi boo koy jéggi yéegi am na yoo xam ne da nga ko ci moo tax gis nga mbir yi nit ñi nattee léeg-léeg du bokk de ak yi am ahmad ibn hanbal daal di koy laajal laaj bi saafi yi mu ni ko gis nga reer bi li ma ci man sax bariwut waaye damaa lekk ba suur lu tax mooy damaa dégg ni saa boo lekkee lu lew lu lew énergie lay doon pour nga mën a jaamu yàlla te wér na ma ni kër ahmad lu lew lañ fay togg moo tax may naa reer ba koll bi fees ah waaw naa fi léegi nag mu ni bi ma tëddee fi ma jaaxaan maa ngi xalaat ay masala yoo xamante ni waroon naa koo régler masala yi fekk mu ni ci laa nekk ba fajar jot ñooñu ñooñu ulaayika al axyaar gaa yaa ngoog juróom benn fukki nit ak ñett téeméer ñett téeméer juróom benn fukki yoo xam ne ma leen di ñaanal kon nit ci mbokk jàpp naa ne la benn magum salaf doon wax ne sa mbokkum julit saa bu dee ba pour mu ñaanal yaa bi bu ma fàtte ci ñaan mu ne mbokk bi dëgëru nee na saa bu mbokk gi demee ba yaa fi bu ma fàtte ci ñaan waay mooy tax nga ñaanal ko mu ni mbokkoo gi dëgëru déedéet da nga koy ñaanal bi zahril xayb wallahi nit ki day toll ci jafe-jafe mu gis affaire bi am xallu te wér na ko ni moom ñaanagul fekk benn ñaana ñoom sa yow yëgoo ko loolu day am de day am de dëgg la nag néew na tey waaye mi ngi am ba tey de mi ngi am ba tey am na ñoo xam ni macha allahu la quwata illa billah li ñuy néew néew néew néew néew ci biir mbooloo mi ñu ngi jëfee sunal yooyu di jàppalanteeg seen i mbokk julit imam abu darda bokk na ci critères yi ko suñ borom mayoon mooy ñun suñu safaan mooy ñun bu ñu gisee benn waay def musiba da nga gis waay waay jëm jëm ngeen diw li waaye diw day contraire yaa xam naka ngay nekkee ci sunna waaye loolu loolu loolu rangat di tarararararar yow demoo seeti ko woowoo ko téléphone laa biiroo ñaanaloo waxoo lu ca jëm utoo ay pexe yoo def ngir mu bàyyi mooy déedéet ñun nag xam nga ñun ñun gis nga léeg-léeg def katu bàkkaar sax nag def léeg-léeg sax daf ñuy gañe ñun ah waa léegi mbokk yi ñun waa jàkka ji fi ne bu benn waaye defoon musiba ñun waa jàkka ji ñu toog di ko waxtaane di ko jëw kenn ku ca nekk ñu pointé la bàkkaaru jëw buñ ko dajalee jox ko ci ay tiyaaba est ce que loolu mën ko far bàkkaaram nit moom ah mën na koo far gi yow ñun mbooloo ñu kenn ku ci nekk jëw nga ko ndax li ñu wax toog di ko waxtaan yëpp ay jëw la parce que boo xoolee amul benn ay la bu islam mën a maye ci yooyu su ko defee ñu lu mat ñaar téeméeri gaa yi jëw lañ ko waxal ñu jël ñaar téeméer yooyu pointé ko ci ay tiyaaba xaw tuuti kon dama ni la mu far bàkkaaram ba mu amaale ca vingt tiyaaba faf te li gën a yéeme mooy léeg-léeg nit dina fetteerlu te fekk ñun ñoo ko tax a fetteerlu moo tax nee na su ma rombee nit ñi di ŋàññi ku def bàkkaar mooy du ma ko ŋàññi mu ni waaw yéen mu fekk mbooloo ñuy ŋàññi seen mbokkum julli mu ni waaw yéen bu ngeen ko fekkoon mu tàbbi ci teen xanaa du ngeen ko génne ñu ni ahan kay mu ni kon kay kii dafa tàbbi ci musiba ci gutta te ngeen kaa jéggalul yàlla bàkkaaram bi te yéen ngeen sant seen borom mi leen musal ba defu leen ko allahu akbar ñu ni ko kii li mu def dafa bon xanaa doo ko bañ mu ni jëf ji mu def laay bañ waaye moom du ma ko bañ ndax saa bu delloo gannaaw rek saa mbokkum jullit allahu akbar maa ngi fàttaliku ci jamono ju yàgg mbokk moo xam ni daa am lu mu ko waxal lam ko waxal di lu ñaaw loo xam ni wax dëgg yàlla yellut muy tege ci daru mbokkum jullit ña ca ña ko wax topp ca di ngaw si ngaw si di wax di wax di wax ba ma ci yëpp ya soofe ma woo mbokk ba mu ñëw ma waxtaan ak moom ni ko nangam nangam jii de yow dong yaa mën a wax ndax dëgg la wala du dëgg mu ne ma liñ ma waxal man a maa ko def dëggul de mu ne liñ ma waxal man a maa ko def waaye nag ñiñ koy waxee di wax dëgg yàlla demeewut noonu léegi xoolal dëgg googu googu am rek mu ne liñ may waxal man a waaye liñ wax ni noonu la demee mbir mi demeewut noonu te soo seetloo nag gis nga ñun ñun suñuy problème mooy léeg-léeg mbir ma naa nekk dëgg waaye la lañ wax ni looloo am day fekk loolu amut mu ne ma ñi ciy wax nag ñi ngi ci topp di wax rek waaye yàlla seede na ni julli naa ay guddi di jéggalu sama borom ci bàkkaar boobu nga xamante ni def naa lépp lu jullit di def pour jéggalu yàlla mu ne dem naa ba talatuma lekk talatuma naan ndax di jéggalu sama borom loolu mbokk yi xoolal loolu fekk ñun ñu ngi ci topp sa waay di wax ay wax yoo xam ni kii nan nangam moo ko def defu ko moo ko tay sayu ko moo ko lii moo ko laa ila axiri te xoolal kooko ndeysaan jug na ay guddi di jéggalu boromam nee na ma ay guddi guddi guddi feet na sax benn yoon bi mu ko def di jéggalu boromam maanaam yow bul bàyyi xel ni gis nga yow li nga li waa ji def bàkkaar la waa ji tooñu la yow yàlla la tooñ yow sa yoon nekku ci war nga koo mittitlu d' accord war nga kaa laay biir d' accord war nga kaa xelal d' accord war nga koo ñaanal d' accord waaye di ngawti ngawtee di wax amaan na moom ndeysaan jéggul na fa jaawasal xam tara yow nga des ci kanam pont bi rek moom jog na ba dem yoonam moom moo tax ibn al qayim di wax ni bari waana nit def bàkkaar jaare ci tàbbi àjjana bari waana nit def tiyaaba jaare ci tàbbi safar ah loolu doy na waar nit mu ne waaw waaw ndax nit day def ab bàkkaar bàkkaar bi ñoral xolam xam mu jéggalu boromam tuub tuub gu dëgg tuub ga nekk sababu mu bàyyi yooyu yépp aw yoonu àjjana mu ne bàkkaar baa ko jéngar ji de moom ba mu jëm ci yoon wa tiyaaba ji nag mu ne nit daa def tiyaaba affaire bi nit ñi di ko ca fii ay diw diw day moom ñu naa ko diw day moom nangam nangam moom day alquranam bi moom day nangam moom day kiyam yi nga commencé di sinqali koo ko jëm kaw affaire boobu seytaan a jaare fa fël la nga waru ku waru rek ndeysaan jàdd yoon yi musiba dal la yàlla suñu borom boolem ci musal kon abu darda mbokk yi noonu la doon mel ci ay mbokk jullitam te laa sakka ne yii mbokk yi suñ koy jàng jàpp naa ne amul benn jubluwaay bu gën a rëy ngir ñu man roy sala saxaaba ya ca loola saaxibul qalbi raqiq wala raqiq abu darda mbokk yi ku tooyam xol la gis nga musiba bu tàbbee ci kaw koo xam ni dafa def safaan même bu dee yéefar la du ko ko yéene loolu nag ñun ñun suñ problème la mbokk yi ñun suñ problème la tey jii benn bandi benn bandi boo xam ne daa nekkoon lakkal waa koñ bi def affaire banditisme nangam nangam mu xëy musiba dal ci kawam ñun dañ ko ko yéene ñëw loolu la ah déedéet du noonu de loolu njuumte la de mbokk yi njuumte bu rëy rëy rëy la njuumte bu rëy rëy la keroog bi saxaaba yi ubbee Qubrus saxaaba yaa ngi kontaan di daw di katafante di kottante di ree di nangam doqonte ila axirihi abu darda ndeysaan romb fi ñu jël yéefar yi chaine leen mu jonkan di jooy ñu laaj ko looy jooy mu ni xoolal nii rek bërki jëm ci dund gu neex lañ nekkoon tey ñoo ngi nii nekk ci mbugal mu metti lan moo leen ko teg bàkkaar leen doon toon seen borom kan moo nu garantie ni ñun kon lii ñuy bëgg a reetaan di ci kontaan nii buñ defoon bàkkaar léegi yàlla xañaan ñu ko loolu moo koy tax di jooy radiallahu anhu allahu akbar gis nga mbokk yi même yéefar bi même yéefar bi sax doo ko yéene yéefar bi déedéet même yéefar bi di yéefar bi sax doo ko yéene yéefar bi ibnu abbas nee na su ma wéroon ni firaaw na bu ma ko jéggaloo yàlla ñu jéggal ko dinaa ko jéggalul allahu akbar firaaw na laa wax su ma wéroon ni su ma su ma ñaanee yàlla mu jéggal ko dana ko jéggal mu dinaa ko jéggalul subhanallah xoolal rek gis ngeen xajaaj ibnu yusuf ak misaal mi ñu ciy joxe ak xajaaj moom daanaka boo waxee xajaaj rek firi dañ leen tuxit gis nga firi dañ leen tuxit ci ndax ndox bi waaye nag bul fàtte naan la yu baax de tey suñu borom ku mën a jéggale la ànd ak nag waxoon naa leen ko li ma gën a yéem mooy xajaaj li muy doy waar doy waar man de xamalu ma ko ay bokkaale yàlla te it nag bàkkaar bu dul bokkaale yàlla yomb na suñu borom mu jéggal ko abu darda mu daal di jàng aay ji suñu borom ni ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين suñu borom di leen alag nañ xeet yi leen jiitu woon ba ñu tooñee seen yonent yi dikkal leen ci lu leer toppuñ leen nii la ñuy fayee ñi nga xam ñooy ay saay-saay wa ka ayin min qaryatin adat an amri rabbiha wa rusulih فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا من فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد في سورة الحج بلا سورة الطلاق بلا سورة يونس muy aay yi nga xam day wane ne nit ki dafa nekkoon ci ak ndëngte ba suñu borom daal di koy alal kon mbokk yi aqiidatu ahli sunnati wal jamaa mooy ñoom yaarifuuna alxaqa fa yattabicuunahu wa yarxamuuna alxalq dañuy xam dëgg bu nopp topp sax waaye yërëm ni ci nekkul da ngay yërma ni ci ñoom kan moo la wax ni saay saay bi tey boo ko ñaanaloon yàlla yàlla gindi ko est ce que ñaanal nga da nga koy ñaanal yàlla yàlla mën na koo gindi de waa ji gën a nekk ku doy waar tey jii suñu borom subhanahu wa taala mën na koo gindi mu daal di jub kon yéene nga koy dëgg la di nga bañ la muy def waaye jëfandikoo xaayir abu darda bi bañu ma ko moom waaye jëf ji muy def laa bañ wasiyatu lxaalida li ahli dimashq ndénkaane bu am solo boo xam ni abu darda dana ko dénk waa dimashq ci jamono yi amar ibn alxataab ci xilaafaam ndax abu darda fekkee nag ab amar dafa soxla benn gouverneur saam pour fal ko mu nekk foofu attekat ak jiite ci xam ngeen mbokk yi xam ngeen luy gouverneur nguur gee lay jox kër mo affaire yii di am yëpp ci ngeen yii di am nii ay tubaab yi ñu def nii nii nii loolu l'islam la de loolu bàyyi leen ko ay gouverneur ak sous préfet ak affaire yooyu ak yooyu ñuy def yooyu nii préfet ak yooyu yii ñu def yëpp l'islam la woon l'islam moo ko njëkk yàgg na bi l'islam doxee ba dugg Espagne ne fa des années ba xëy daanu foofa ci sàggante jullit ñi sa la yu bari yolloon nga lay génn tubaab yi jël ko ndax xam ngeen Espagne mi ngi ci diggu xolu Europe gis na loolu Abu Darda Omar ibn al-Khattab ni ko kaay ma fal la mu ne ko bëgguma kaay ma fal la mu ne bëgguma loolu mooy dëddu àddina dëgg nag mi ngi mel ni jamono ji rek waa joo xam dañ ko fal jox ko oto jox ko kër jox ko nangam di ko fay salaire nga xam yow salaire sax bu la neexee nga yóbbu ko banque bii de ci ko mu ne bëgguma li bëgg mooy dañ ko bàyyi rek muy jàngat jàngal ndax ñoom àddina da leen yitteel loolu mu ne ko bëgguma mu ne ko ah di nga dem de nga xam nga Amar moom gaaw na ci loolu moom lii liggéey bi yàlla di nga dem de maa moom fudd sa digg bi Abu Darda ni ko dé dama dem looy def nag def ko loo xam def ko waaye déwum ay atteeg yooyu dama cee dugg lépp daal laa xam ne bu mën a ñàkk mooy bu fekkee mën nga maa bàyyi daal ma dem nekk ak oustaz di jàngale comme ni ñu koy waxee nekk oustaz di jàngale man jàngale rek laay def yar nit ñi ci l'islam bu jëlee jotee mën naa leen a jiite Omar ni ko waa baax na demal gis nga Omar ibn al-Khattab xamoon na ni maanaam gis nga léeg-léeg gis nga bañ yu bari jëru ko maanaam nit am na bunt boo xam bu fa xasee dugg rek dina am la nga bëgg xam na ni Abu Darda yarkat la jàngalekat la bu gis société bi yàq mu toog kër moo tax mu ne ko demal garaaw defal li nga bëgg Abu Darda takk ay débat débat ci dëbësam daal di yegg si Dimashq fekk dëkk baa nga mel ni Ndakaaru xam ngeen Ndakaaru dëkk baa nga mel ni Ndakaaru foo wëlbatiku marché nga xam jigéen ñaa ngay sol lu bon ba mel ni naarullahi muqada ah sabar yaag tàndi maanaam mooy yàlla di mel ni ca Dimashq ndeysaan Abu Darda daal di ñëw daal di jawali jàkka ja bim dawalee jàkka ji daal di yuuqu yaa ahla dimashq antum al ixwaanu fi ddin wal jiraanu fi ddaar wal ansaaru al aada يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لأبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم الله أكبر آه yéen waa dëkk bi yéen da samay mbokk jullit ngeen ci diine yéen da samay dëkkandoo ngeen ci kër ak àddina su ma doon xeex ak samay noonu yéen dong laay àndal ndax yéen a ma gën a jege waaw lan moo tee ngeen ne wuy si ma ci woote boo xam ni li ma am ci ay laaye biir yépp mën naa leen ko jox ngeen jariñoo ko te bu salaire jotee soxlawu ma ngeen fay ma allahu akbar muy li ma jaaxal maali ala ulamaikum yadhabuun wa juhalukum la yataallamuun ay yéen li ngeen def xamu leen ko de yéen dëkk yu borom xam-xam yaa ngi dee ci innocent yaa ngi kon ne kenn jàngut وأراكم قد أقبلتم على ما تكلف لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به mbir yi nga xam ne suñu borom garanti na ni faw mu ñëw muy mbirum wërsëg yéen a ngi ciy sonal seen bopp mbir mi nga xam ne garanti luñ la ko te moo lay dugal àjjana yéen a ngi ci sàggan muy sa diine yéen xam ngeen li ngeen defar maa li araakum tajmauna ma la taakuluun yéen li ngeen dajale ci alal mun leen koo lekk di fee ngeen di dee wa tabnuuna ma la taskunuun li ngeen jotaam ci ay tabax mun leen koo dëkkee wa tuammiluuna ma la tabluguun li ngeen di ndébét da ngeen di dee ba ko fa waaye du sotti laqad jamaat al aqwaam allati qablakum wa ammalat fama huwa illa qalilun xatta asbaxa jamcuhum buura wa amaluhum guruura wa buyutuhum qubuura mu ne am na ñu leen fi jiitu woon ñoo xam ni ñoom kat tabaxoon nañ seen àddina ba mu yemb tey mi ngi ni lépp a màbb ndébét ya naax na saay kër ya far na soppali ku nekk armeel xanaa gisu leen aat muy nit yonent yàlla huud aat nit yonent yàlla huud ya mu ne xanaa gisu leen leen leen ak nañ amee woon alal mu ni lañ amoon ci ay taar taar nga xam ne ku ko fekkee woon bëgg a mel ni ñoom mu ni kaay leen ma jaay leen seen miraas ku bëgg ma jaay leen miraasu aat ñaar dërëm loo koy def fa aat dëkkoon giir ak aat fan dëkkoon nga xam ne toll nay jamono nit dëkk foofu rek lay bëgg ndax ñun naate ñun ñun la tëxee mu ni fañ mujj tey lan la muy kër yi ràpp na ku ñëw ma jaay la ko dix francs kenn soxlawu ko ndax lépp ay ay màbb na nekk na ay armeel waa jàkka ji tàmbali di jooy ba dëkk bi ñu nekkoon ci biti jàkka ji jooy waa jàkka ji moo leen andi ci biir jàkka ji allahu akbar sala xëy rek dëkk bi soppeeku maanaam benn wax allahu akbar mbokk yàlla moo mën a barkeel genn waaraateen bii moo soppi dëkk bi dimas benn waaraateen bii ci benn ngoon bii moo soppi dimas dëkk bi soppaliku nekk dëkk boo xam ne macha allah mu commencé ubbi ay xilaq xam-xam di jàngale ba foofa daanaka ci dimas fa la ko dee fekk xirsuhu ala raayatihi xir goo xam ne abu darda xiroon na ko ci li ko yàlla dénk abu darda xamoon na ni njaboot gii suñ borom dénk war nga cee faral ndax ëllëg yàlla dana ko laaj dafa amoon doom bu jigéen bu ñuy wax darda moo tax ñu naan abu darda abu darda mooy ba Uwaymir mooy tur wi abu darda ndax taawa bu jigéen darda la tuddoon ummu darda parce que ndaw si tamit taaw bi moo tuddoon darda kon arabi dàkkantal googu moo tax ñu ne abu darda ummu darda ndaw si muy darda mu nekk jigéen ju jekk joo xam ne sunu borom may na ko taar tayit gone la benn bis muawiya doomu abi sufyan xam ngeen muawiya amirul muminin muawiya mi nekkoon amirul muminin mu am doom ji ñuy tuddee yazid ki war a doon président doom moom la ñu wax prince prince ko wala xam nañ ko gars yi waxatee. prince héritier waaw kii wax nga ko loolu loolu loolu martaba ju kawe nga xam ni yaa war a nekk doomi doomi doomi bu wóor. xoolu mu awee ni mu meloon lépp bu fekkee booba faloogul sax xoolal ni mu meloon mu indi doomam pour doomam war la dam doomu Abu Darda ay bu doon noonu ñun ñi nga xam ne àddina fëkk suñu bët yi ak i koppar. su doon kenn ci ñun rek benn kilifa ministre mbaa simple yépp ci rek moo ñëw sa kër rek day mel ni sawaay ab yonent la yàlla yebal sa kër yow ndax bëgg àdduna waaw allahu akbar waaye ñi dañoo xamul ni kër gi kër gi kër gi dugg lañ xam ne Muawiya daal di ñëw ni Abu Darda damay labat sa doom bu jigéen bi ngir ñu may ko sama doom ju góor ji abu darda ya tekk ba mu yàgg mu ne ko xemme mu ma sa doom ju góor pour may ko sama doom ju jigéen lu tax mu ne xam naa ni sama doom ju góor bu ñëwee sa kër mën naa fanaan fu koy mbindaan di toppatooyee waaye fa pas-pasam nar a fanaan laa xamul ñu teg ci ñaari fan mu seet benn citoyen simple waa joo xam ne ndeysaan daanaka rek xaw tuuti kon nga ni kaway lu mu njëkkee sax mburu ma sax du am bër loolu la Saïd ibn Musayyib defoon may ko doom ci maanaam mbokk yi salafu saalex dafa bokkoon ci seeni doxalin mooy ñoom daawuñu xaar sax nit di bëgg ci seen doom bu jigéen ñooy jug wutal ko borom kër defe naa maa qisatu Saïd ibn Musayyib min ko mu ayib defe naa ñu bari ci ñun dégg nañ ko nga xam ni sa waay doomi doomi buur moo ñëwoon di ko bëgg si mu bañ ko koo may may ko waajoo xam ni bis biñ ko ko mayee amut lum ndoxoo daa waroon amut lum ndoxoo mburu mu wow la jël def ci tuuti huile de lime ngir mu tooyal ngir mën koo ndoxo mu ni keroog bi muy indi seen bi sama ndox bi sax dama rus ba dama ko nëbb pour buñ ko gis ndax ni mu doya dee est ce que nit ñi tey loolu la ñuy def déedéet jëkkër ju jóge Espagne mbaa Amérique mbaa Europe mbaa ko xaw amus tuut ndax commerçant la mbaa waa joo xamante ni daal këram pare na mbaa waa joo xamante ni am na oto mbaa yu demee noonu moo tax loolu laa sama mbokk yamata ma ni leen gis nga ko am oto booy labat ndax bul yóbbu oto bi demal nga doxal sa tànk ah affaire yow léegi ah diw kat moom daa mel ni yor na suut kat oto kat ko fi indi nag far nag gars yi sama classe yi nag moom duñ am oto ba noppi nag abbu oto jàmbul sax fas na gis nga ma affaire ni baax yooyu mooy moo tax loo ci gis te muy mujjee toujours rek yàlla day feeñal njuut njaaj gane woon ci tàbbali ba salafu saalex seen melokaan woowu ñu doon def nag ba tey mi ngi am yëg leen ko de maanaam misaal yi may joxe amul ci misaal mun ci joxe lu dul nun yàlla def na xam nañ ay nit yu koy def ba tey ila yowmina haada xam nañ ay nit yoo xam ni yëkkati nañ seeni doom gaaral ko ñun yaakaar ci diine ñoo xam ni guur nañ ni fii amul dara wala dara booloo jeex kaaj ku simple koo xam ni wax dëgg yàlla bu dee àddina la ñuy séntu ci moom amu ko loolu nag salafu saalix mbokk yàgg nañ koo def la tax ñu koy def mooy bëgg ëllëg seeni njaboot di tege ci loxo yu wóor ci loxo yu wóor nga xam ne da ngay tànn waa joo xam ni même bu amut it am na diine de ci koom diine mbokk yi ñàkkoo dara ku am ragal yàlla ñàkkoo dara man ngaa dem foo xam ne ay mbindaan ñoo lay toppatoo sa affaire day baax wala nga dem Europe wala nga am ko jóge Europe ila axiri ma tasgur waaye day diine ja du màgg de lii may wax nii xam naa ay nit yu koy dund léegi nag yi nit ñuy dund nag ñu daal da caa doy ndax comme ñu ngi koy dund te dund gi jeexagut jarut di wax waaye xam nan ay nit yu koy dund wallahi alazim ñoo xam ni yombal ko allahu akbar da nga naan yow ñii xanaa ay desi ci saxaaba lañ daa saxaaba yi dañaa jeex ñii desoon ñii des nga xam ni yàlla rek subhanahu wa taala la ñuy taamu ci li ñuy def bal ñu xam ci ba am koo xam ni moom mi maye moo yëkkati alalam joxe ko sant mi ngi am de tey nag jigéen ñi di leen ci jàppale nag foofu nag fa la mbir ma nekkee nag gis nga tey jii boo fi nekkee benn parent am ci doom bu dëgër nga da ngay jéem a jëfe loolu jigéen ñi la ci doon bàyyi de ah yaayam fii bàjjanam fii tantam fii waaw ñi moo def lii li laa kër nag bu demee ba góor gi daa am ñu bokkal baat ba bu yeboo na suñu tubayam mu wodd te xam ni daanaka amatul njariñ salafu saalix ñoom buñ daan def yi mel noonu jigéen ñi amuñ sa wàll ndax lii mbirum diine la topp te gannaaw rek xawaam ya gi nekk sa loxol góor abu darda daal yëkkati doom ji may ko waa joojee mu daal di mujj nekk soxnaam gis nga boo demee ci seeru alami nu balaa da nga fekk salafu saalix ñu bari dañ daan def lu mel nii wala nga jékki-jékki ba mu yàgg ah sa baay woola di la ah waaye bu amoon borom kër bu mel ni diw bëgg nga mu ne waaw waaw mu dem ca ko góor ko ni ko waaw yow bu amoon soxna su mel ni diw bëgg nga mu ne waaw mu ne ko tàllal sa loxo may la ci am na yoo xam ne ci mbedd lañ ko defee mbedd waa ji ànd nga ma ci yoon bi rek mu ne ko ba bëgg nga may ñu daal di ko koy may ci saas fii ci misra am na benn cheikh buy jàngale ma déglu ko ci waxtaanam nee na dafa dafa dafa jàngale ba mu yàgg ci misra égypte gii lii may wax nii ci jamono ji ñu dund ñun mu jàngale ba mu yàgg mu ni fekk benn maire daal di ñëw dugg ci biir kër gi ci biir xalqa bi sëgg ci nopp cheikh bi am na lu mu ko déey daal dem cheikh bi daal di jàngale ba noppi daal ni waaw yéen ñii mooy gaa xërre ji rek gaa yi jàng mu ne waaw yéen ñii am na ku ci amul soxna waaw parce que li ba jéeri daanaka foo fekk mbool am ñu cee gën a bàyyi gaa yi yëkkati seeni loxo mu ne ah ku ci bëgg soxna de mën naa laa lijjantil soxna ku ñeme benn waaye daal ni man mu ne ko maire bi fi ñëw sànq ba moom daa am lu mu doon gaaral kañ dem xalqa bi jeex ñu ànd ñoom ñaar dem te kiiman bi suñu borom def fekk borom xam-xam bi ko nettali mi ngi doon nettali ci wàllu fegu ak lekk lu lew ni la yàlla wommatale sa wërsëg waa ji neen dafa jàng ci xalqa ba nag amul bursu Égypte amul lu mu lekk mu génn di wër ba romb ci benn buntu kër fekk ñu teg fa benn bool xam naa affaire ndongo daara yi rek xam nga bu doon sama gars yi moom ba léegi jël nañ bool ba dem seen yoon affaire ndongo daara yi dikkal ko muy itte naa jël bool ba du ma ko jël mu yàgg mu ne ah su ma ko jëlee lekk lu léwul te may sàkk xam-xam yàlla du barke naa bàyyi bool ba nekk bool ba ci ci ci can ci ci nu ñu koy waxee daal waral waral ci ci waral waral maanaam ci bisub waral ba lañ fa war a lekk nekk bool ba mu bàyyi woon fa la war a bokk moom nee na mu ànd ak saytu bi ñëw ba ci bunt bi mu ne ah man fii laa romboon sànq nee na ñu daal di dugg si maire bi ne ah moom borom këram daa faatu bàyyi ko kër gi ak alal ji te góor amul doom ju góor te moom daal gis na ne daal wóoluwut ku gën a wóor ab ndongab xam-xam mu bëgg am koo xam ne dañ koy may xale ba noppi jox ko ne ci kër gi mu nekk kilifa kër gi boobu de kooku ne dal na siw kaañ dëgg nag kooku moom daal dal siw kaañ dëgg nag nee na maire bi ne bismillah ñu daal di wax saytu bi moo ko mayee ñu may ko ko te saa sama mu daal di commencé seetu moom lii may wax nii jamono yii la am fii ñu dëkk mi ngi am ala kulli xaal mi ngi am ñii dund nag léeg-léeg li ñuy def dañu dañ dul bëgg ku ko wax ndax loolu moo gën sax abu darda radiallahu anhu dund na ak dund gu gudd fan mbokk yi dund goo xam ne bi tadxiya wal jihaad di jàngale di dëddu addina di yare di wasaare xam-xam di dund àjjanay àddina ba bis bi mu xëyee faat ndeysaan bis ci bis yi rek mu daal di xëy tëdd nag ci lalu feebar muawiya ibn qurra nee na damaa ñëw seet si abu darda ndeysaan maa ngi ko fekk feebar baa ngi metti lool ma yërëm ko ma ne ko waa abu darda fi ne lan moo lay metti mu ne xanaa saay bàkkaar allahu akbar mos ngeen dégg loolu luy metti bàkkaar yu metti lan moo lay metti mu ne saay bàkkaar ñu ne ku la laaj lay metti sa li metti ngay wax yow moom effectivement wallahi li koy metti la wax li koy metti la wax ndax doomu aadama bu amee ñaar yu lay nit nga war a tudd benn ba la gën a metti ngay tudd li muy yëg ci metti bàkkaar yëpp gën a metti mu ne samay bàkkaar moo metti waa ji ni ñokket na la dem mu ne ko foo jëm mu ne ko damay wo- xool ba xam dina am médecin mu ne ko jërul ngay wëri ndax médecin bi ma feebar lool beneen bu fi ñëwit du fi indi benn saa saafara ndeysaan soxna si daal di génnee fële ci kër ga ni ko ah abu darda man de nii ma la gisee nii dama mel da ngaa nar a faat ah abu darda sama bàyyee dinaa wér de ñoom ñaar seen diggante ndeysaan nag ah allahu akbar diggante la woon boo xam ne diggante bu rafet te neex lool daanaka wax ne ida raaytani gadibtu fa radini wa ida raaytuka gadba radituki saa boo yégee ni man dama mer mu ñu yolomalal buum ji nga neexalal ma kontaan bu ko defee su ma yégee da ngaa mer ma yolomal nga nga ma yolomal buum gi neexal la ba nga kontaan mu ne bu ko defee kër gi neex kër gu neex lan yoro wallahi alazim kër gu neex lan yoro mu ne ko loo may bàyyee ah abu darda boo fi jugee man mbaa su ma ñàkkee du ma dem bay sarxu mu ni ko sarxu bu la ci dara ju- jugal ci kaw suuf boo amut loo lekk ba loo lekk demal ca dàgga ja xam ngeen dàgga ja xam ngeen dàgga booy kaw kaw yi xanaa war ngeen xam loolu yéen booy kaw kaw yi xam leen loolu fa ñuy bojjee ah kooku de kaw kaw la fa ñuy bojjee dugub xam nga fa ñuy bojjee en général boo demee dina am ay pepp pepp dugub ay gub yëpp mën a mu ne ko boo amut loo lekk demal ca tàggaje nga foraatu loo lekk waaye bu la kenn tax allahu akbar bul nangoo jël lépp kenn bu amut loo lekk demal ba ca tàggaja nga foraatu fa ay gubi dugub yoo lekk makk yi ndaw si loolu ku borom këram wax la doon def waaye daawul jël ay sarax ak ay kaay ma dimbali la kaay ma nangam déedéet ndeysaan abu darda la tëdd ci lalu sukuraat ndaw si dikk tiim ko rek rango ñuy tuur ndeysaan mu ne abu darda mu talal ay loxo mu ne yow sama borom kii tëdd nii tey di sukuraat sama borom kër la moo ma xool ba sippali ma ci jigéen ñi labat ma sama kër baay takk ma indi mi ngi nii nar a faat man nag yàlla ta man li may def tey mooy man maa koy labataat ngir nga takkal ma ko ëllëg buñ tàbbee àjjana abu darda ni bërëg ni ko ah ma bëgg nga looloo mu ne ko waawaaw mu ne ko soo ko bëggee nag kon bu ma faatoo doo amaat beneen borom kër ba kera ngay faatu yow it ah lu tax mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëkkër ak jabar bu ñu dajee biir àjjana ndaw sa bu ñu koy maye même bu amoon ay borom këram premier borom këram lañ koy may comme premier borom kër te may premier borom kër nag bu ñu la mayaat keneen ndaw si ni ko insha allahu dinaa def loolu abu darda faat ndaw si moom it masha allah wax dëgg yàlla mu nekk yàlla dénk taar mel na jigéen war a mel tayit di gone muawiya ibn abi sufyaan daal di dem ba jamono soppeeku bëgg koo jël soxna ba mu yegsee mu ni ko ah man de fi mu nekk nii mënuma ut borom kër man fi ne moom affaire sëy moom dawal naa ci lu xew mu ni ko dégg naa sama borom kër nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen bu duggee àjjana même bu amee borom kër amaat amaat amaat soxna yak borom kër ya buñ duggee àjjana ku njëkk ka am na ci benn riwaaya boo xam ne sax dafa wax ne moo tax loolu bokk na loolu bokk na ci du loolu kese na waaye bokk na ci li tax soxna yonent bi gis nga amul borom kër ndax ay soxnaam lañ war a donaat ci biir ajana ja bokk na ci sabab ci nga xam ne sunu yaay lañ wa azwaaju ummahatuhum waaw ku mujj ki aywa jazakumullahu xayran ku mujj ki la war a doon maanaam borom këram bu mujj bi lay war a doon xam nga kon borom kër bu mujj bi kon bu amaatee borom kër rek kon ki mujj takk lay am mu ne ko comme ku mujj ki lay doon nag li axiri azwaajiha wax nga dëgg noonu la xadis si tëddee li axiri azwaajiha ci borom këram bu mujj bi kon bu fekkee takkaat na keneen kan mooy nekk bu mujj bi ki mujjee takk mooy nekk borom këram kon ca àjjana léegi nag comme ku mu jikki kan lay doon man mi la njëkk a takk kon fexeel ma nekk ku mu jikki tamit li aaxi albaratu li aaxi li aaxiri azwajiha fil janna noonu la xadis bi tëddee loolu nag rot na ci ay riwaayaat ñeneen ñu dul abu darda def nan ko asma bint abi bakr xam ngeen ko moo nekkoon soxna ah gars yi daa mel nekkul xel de zubayr zubayr da ko tàngul jir naqari deret ba xam nga kenn ku nekk am na fabe sa miliyaar ku ko xam dafa mel ni xaram yar kii nooy kii ne maaral kee dëgër tal kër zubayr dafa dëgëroon léeg-léeg mu ñëw ndeysaan daal di jàmbat baayam abu bakar ne ko sama borom kër nii moom dafa nangam nangam moom loo wax benn ñaar ñett mu sàmbaar ci sa kaw wax a wax ba àggal mu ne ko muñal laati xam muñal laati xam ndax comme si waa àjjana kat la bokk ndax min Zubayr bokk al asharatu mubashiruna bil janna te may maa ngi lay yaakaare àjjana muñal kat te nga des si moom ndax ëllëg ngeen ànd ak fële loolu laa ci xam de aw ma lu ma lay wax leneen lu dul loolu bu yow nga jël say carte nga dem sa yoon bu doon jigéen ju am borom kër boo ñëwee sa kër bàyyi loolu lañ lay wax doo fi fanaan wallaay maa xam paa yu dund loolu doo fi fanaan am na jigéen ñoo xam ne fay lu ko xalaatuñ ko mukk mbaa boo fayee xanaa sa kër bàjjan ngay dem waaye sa kër bàyyi kay boo fa ne yund doo fanaan doo yend moom kay lan la waxal say soxla ñu rek la ko léegi lu bubaat say kaaka nga dem sa yoon kon loolu rot na ci ay riwaaya xadis bi may ñëw cheikh albani rahimahullah wéral na ko ci silsilatul ahadis as saxiha moo tax xusayfata ibni al yamani bi muy faatu moom it dafa waxoon soxnaam ni ko maa ngi day yaakaar ci sama borom àjjana kon nag su dee yow it da ngaa bëgg lu mel noonu ah bul am borom kër sama gannaaw fii ci kaw suuf loolu nag day fekk jigéen ji man ko maanaam loolu la muy wane mooy kon melokaan wa sunu borom di defee ci biir àjjana ja waaye nag jigéen ji bu fekkee mën naa mun am borom kër moo tax moo awee ba mu paree dane ko ah kon nag ndaw si maa ngi lay dénk del woor lu woor lu bari pour mu dimbali mën laa dimbali ci toog gi ngay toog bañ a am borom kër ndeysaan ndaw si noonu ak taaram ak ndawaayam mu toog xaar ba faatu dikkal ko yaakaar naa Aïcha gis ngeen ko à l'âge de 18 ans la yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam 18 ans nga dund ba 50 et quelques loolu loolu te amoo borom kër ah dana waar de gis nga yu mel nii nag dafay wane al mawaddatu fi dunya tawaasalat xatta fi l axira sofeel gu boole woon ay nit fii ci kërug àddina gi continue di leen boole ba ak kërug alaxira am na sëy yoo xam ne ni mu takkee woon fii ci àddina noonu lay takkeewaat fële ci alaxira loolu nag day fekk nag kenn ku ci nekk am noo mel te sa morom nag ah la waaje waxoon mu ni mu ni yii bi soxna si seede bi soxna si baatoo muy seede mu ni yii kii kay buñ dajee àjjana sax doy na xam nga kooku kooku fa mu yegg fa mu yegg métti na de kii buñ dajee àjjana sax doy na vraiment loolu loolu baaxul moo tax jigéen ji war nay góorgóorlu bu baax ci digganteem ak boromam te loolu dinaa koy baam ci duruus yu bare bare bare mbokk yi sëy jaamu yàlla la de bu rëy rëy rëy rëy rëy gu mag a mag a mag a mag a saa boo faatoo bu jigéen ji faatoo tampon yi ñu ko war a defal ci passeport bi koy dugal àjjana day julli ñu xool julli mu baax ñu door benn cachet ñu xool woor yi mu baax ñu door benn cachet ñu xool azaka yi baax ñu door benn cachet ba moom cinq cachet dese na benn xam ngeen ban la lu sa jëkkër wax lu sa jëkkër wax nag fa la problème bay nekk toujours wa mbokk yi xoolal jigéen joo xam ni jaamukatu yàlla la woorkat la joxekatu azaka la def na li ko war lépp waaye xoolal cachet bi ko nar a yàqal pour mu tàbbi àjjana mooy lu jëkkëram wax te am nañ ci solo de waxuma lu jëkkëram wax jëkkër ji naan kay yàlla ko yàlla yërëm jéggal ko yam foofu loolu du seede loolu du seede da ngay wax lu baax lu nit ñi mën a dégg léeg-léeg am na yoo xamante ni da ngay xam ne yaa quelque chose am na lu ne ci dënn waaju waxu ko am na lu ne ci dënn waaju waxu ko imam ahmad ibn hanbal daa tiim soxla sa moom faatoo mu ne ah kii kii yàlla ko yàlla yërëm kii def nañ maa ngi moom ñaar fukki at daaw ma def lu ma naqari mi ngi ñuy tëdd am ñu imam ahmad du waxantu de Surayh al-Qaadi mu ne man def naa moom ñaar fukki at benn yoon lañ ma ko jote maa ko toog loolu yooyu seedal yooyu seedal la jigéen ñi soxla yii seedal la soxla góor goo xam ni boo ko njëkkoon faatu rek sa waay addinaam nar faa jaare lu tax ndax fi nga ko féete woon jigéen joo xam ni moo lay soñ jàngal alquran moo lay soñ ci di julli del julli guddi ah booy liggéey mu ni la boo indee lu lew baax na boo amul lu lew doy na bu fi indi lu lewut ah jigéen joo xam ne bu ngeen jotee moom xoolut maa la tooñ xoolut yaa ma tooñ li muy xool mooy la jigéeni ajana ya mer man daal fas yéene wu maa gëm bët lu dul da ngaa kontaan loo yaakaar ni buñ ko waxee góor mu kontaan dana la ko wax laa aduqu xumban xatta tarda te xooluma nag yaa ma tooñ wala maa la tooñ gis nga de du ma yëkkati mukk sa xol mbaa saa bu ma ko yëkkati dinaa fex ba wàcce waat yu mel nii moo doon am ci biir salaf saalih te saxaaba yi moo tax ndeysaan da nga ci daan gis nit soxnaam génn àdduna rek ndeysaan lu bare bare bare bare feeñ ci dundam wallahi da nga ci gis ab sayx buy jàngale yor xalqa bu mat ay juróomi téeméeri téeméeri nit soxnaam faatu mu am ay fan du mën a jàngale lu ko waral am na yoo xam ne mbiri biir kër la am na yoo xam ni ka koy dund rek ko mën a wax ñoo ko dund xamuñ ko soxla yi rôle yu mel noonu nag lañ leen soxlaa ci biir kër nga xam ne da ngay mel na Xadija meloon nga xam ne da ngay faatu ay at sa borom kër jàppee la ku ne ci kër gi ba tey xam ne bu amee problème sax mi ngi naan ah ah fi dem si yàlla nekkoon yéen si yàlla daan ay ah bu fi Xadija nekkoon xam naa du demee nii bu jigéen ñi ci kër gi dañ doon piir day piiree ku faatu loolu seede bu neex la mbokk yi su fi diw nekkoon da koy fekkul benn mbokk soxnaam dafa faatu nee na ma am nay jamono dama daan jaay butik nee na gis nga bi soxna si faatoo fu mu taxawee ci kanamu balance bi di peese rek alaxiram day taxaw daanaka nee na bu musaana taxaw di peese rek soxna si naa ko ah waylun lil mutaffifin xoolal li ngay def de mu nee na bi soxna si faatoo bu taxawee ci balance bi nekk day am problème xoolal loolu xoolal yii seede allahu akbar soxna soosu moo daan wax borom këram ni ko qaala allahu qaala rasuluhu bu jàllee sag xaala moo gën a tees sama xol ci xaala yoo àddina bi yépp gis nga maanaam nit bu góorgóorluwul yaa góorgóorluwul toogal foofu rek ngay yéey caafaka ba xam rek am na ñoo xam ne ña ngay góorgóorlu ba àgg sa njomboxtal ba abu darda noonu la faatoo radiallahu anhu wa radiallahu an jamii alsahaba soxnaan des di umu darda toog ab biir amul borom kër al imam ibn al jawzi boo delloo ci sifatu saf wala safwatu safa muy téerab siyar boo xam ni ñaari mu jallad la mi ngi nettali benn gént boo xam ni kenn ci saxaaba yaa ko gént bi abu darda faatu gént nag bàyyil xel ni kenn du ci sukkandiku pour fonder ay atte kenn du ci sukkandiku ngir wane ne lu waay gént rek loolaay li am waaye nag sañ nañoo wax ne yonent bi nee na nubuwa jeex na li fi des mooy gént ak jullit bu gëm yàlla moo fi des te yu mel nii nag bari waa na muy am ci dund salafu saalih bari na lool ku dellu ci siyar ku dellu ci bidaaya wa nihaaya ku dellu ci sifatu safa ñetti téere ngi yoo xam ne ku ca dellu bari waa na ñoo xam ne bu ñu leen tarjamaale ba noppi am na ku leen géntal gént ku kéemtaan Awf ibni Malik al Asja'i ci saxaaba ya la bokkoon nee na bi abu darda faatoo dama tëdd ba guddi rek sawaay mel ni dañ maa yëkkati ni ma coppet andi ma ci biir benn jardin boo xam ni mu naatee ni mu rafete rafetee ni mu nëtëxee gàtt yaa ngi wër maanaam affaire bi mel ni sawaay tey la biir ajat nee na ma daal di seen benn xayma boo xam ni munu ma laa wax ni xayma ji ci lii lañ ko defaree ma waaxu jëm ca seen abdourahman ibne awf di génn ci biir xayma ji ma ne waaw kii du Abdurahman ibn Awf mu ne waaw waaw mu ne ah yow lii mu commen ma commencé wax mu ne déet gis nga de lii lépp suñu borom mi ngi ñu ko fayee ci alxuraan bi waaye jàllal ci ci ginnaaw nga xool boo jàllee ci ginnaaw nga gis lu fëkk sa bët nee na bi ma jàllee ca gannaaw la ma fa gis moo ëpp gën a yéeme lii ma gis bi ma laajtee lii pour kan la ñu ne lii pour Abu Darda la radiyallahu anhu Awf ibn Malik al Asja'i ko ci saxaaba yi la bokkoon moom moo gént gént bi yu mel nii nag yàgg naa am comme ni ma la ko waxee yu bare bare bare yoo xam ne salafu saalih dañuy gént ay gént yoo xam ne yu rafet la te it nag lii mën naa am ba tey de ñu bàyyi leen ci xel nag donte nag gént nag dañ koy tënk ci du ab sukkandikukaay boo xam ne ca la ñuy peese ay atte charia ci nangam déedéet waaye nag géntu lu baax ci sa mbokkum julit sunna sax dafa digle na nga ko nettali na nga ko nettali te lii mi ngi am ba tey tamit ba tey mi ngi am am na ci jamono yi ñu toll nii ay nit faatu nit ku baax ku ragal yàlla géntal leen gént yoo xam ne wax dëgg yàlla neex naa nettali seen mbokk yaakaarul na lool ñu mën caa sukkandiku ngir gën a ñaanal yàlla kooku ak yërmande kon رضي الله عن هذا الصحابي الجليل وعن زوجته الجليلة ها وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نغي نيان سونو بروم سبحانه وتعالى مو ديفال توفيق لي مو باña nek lu ñuy dégg rek mo ñu nek hujjatan alayna waaye mu nek hujjatan lana jëfe ko yàlla sunu borom yombalal nu ko yal na yàlla boole ñu su mbooloo ma nga xamante ne yaquluna rabbana gfir lana wa li ixwana allazina sabaquna bil iman nu ngi ñaan sunu borom allah yajala fi qulubina ghillan allazina amanu innahu huwa alghafur rahim wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa alihi wa sallam ajmain aywa naam